Bienvenue sur Salam Vision. na ngeen def waaw na ngeen def. waaleykum salaam. na ngeen def. na ngeen def. ça va. alhamdulilah. Thank you.

Euh, Omar Balla Gaye numéro 2 yow sa rak Salif sa grand frère Lirou ak délégation bi nga àndal ñu ngi leen seen kër fi ngeen ñëw nii. dangeen fi am priorité kenn ëppaliwu leen kii dafa waxul lépp kii moo topp ci mbéy mi mbéy mi namp jox ko moo Double Less ñoo maase kii Double Less su mu ko tubaab bi ana borom cartable bi donc boobu temps jeune étudiant commencé liggéey li mu expliqué ne déggu déggu leen ko ndax masque bu mu takk moo tax ma tekk sa masque pour leer leen ko. fi ngeen ñëw nii seen kër bàyyi ngeen ñëw fi ngeen ñëw nii seen kër maam ngeen ñëw ndax baayu Mbaye Gueye moo dëkk ci tabax bii te kii baayu Mbaye Gueye nag mooy bàyyi Double Less jarul ñu nettali histoire Mbaye Gueye ak Double Less maa ngi dégg ci maa ngi dégg barki démb démb rek ci témoignage yi Mbaye Gueye di wax ne bu Double Less di bëre xaw ma moo ko indi ci làmb ji arène sénégalaise réerul mbir benn sénégalais ne Double Less terre d'accueil am kër accueil am mooy Mbaye Gueye Tické Fass ak yaayam Aïssatou Ndiaye fekke naa ci tout tànk laa woon waaye fekke naa ci bu ñu demee ba suñu grand boobu Double yàlla ko yàlla may tànn yëkkati ko ba mu ñëwaat mën a toog fii moom déplacé wu ñëw jaale si Mbaye Gueye Tické Fass loolu mooy suñu yéene yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def fi ma bëgg a ñëw moom Double Less laay tàmbalee man sama bopp Moussa Faye tette na ma fii ci Sénégal ak bi ci ëpp nag mooy équipe nationale de lutte wax na ko ñëpp dégg ko conseil yi ma naan jox ak sama xaas mu daan nangu pour ñëw jox ko sama yaay loolu sama yaay du ko fàtte man du ma ko fàtte donc Omar su màggee ab ànd ak rakam ñu nekk ay champion dañuy am yéen si ñoom pour ñu doon de grands ba pare nag. Omar ak njabootam di taxaw ci ginnaaw Mbaye Guèye lu ñu yëg ak lu ñu yëgul li ci mujj barki démb moom mooy mbër ñu jox la avance ku ne xam ne mbër bu ko dee avance ménage ba sax du ko ci jox te agul këram ca fañ koy waxee sotteegul moom newu fa ca la yebelee ne nangam ci sama li ma moom yooyu naa ko sama bàyyi ndax tëraay bi mu tëdd yow tey jii boo sañoon sa papa Mbaye Guèye doo ñëw di ko jaale si boo sañoon na nga ñëwoon kër ga fu mu tëdd nga waxtaan ak moom da nga fekk bu ne cokk taxaw ji dox nga waxtaan moom mu gunge la waaye yàlla kenn du ko ceeg moom donc Balla la famille de Mbaye Gueye dañ lay jaale sa baay Mbaye Gueye koy jaale suñu bopp noonu la ko a jaale yow sax nit ñi war nañ dem sa kër yow di la jaale Mbaye ndax Double Less yëg-yëg boobu nga am bu mën a taral say baay yàlla yàlla yokk sa wërsëg yaatal ko ñun ñaan nañu am ak yéene ku fi toog tamit di seen nawle di seen moroom seen nattangoo dañ koy ñaanal mu am yokk li mu jëm am ndam ci li mu jëm ci daal Balla jataay bii xat na yëg-yëg bi nga am ba déplacé wu dëkk bu jaxasoo bii nga déplacé wu ñooy fekk si la famille de Mbaye Gueye sa famille ñu lay delluwaat da ñaan yàlla da gërëm da sant buñ la téye dañay bàyyi nga dem ndax ah borom turam mel noonu boo nee jëlañ ci place ñëpp a doon jëlañ coow li bari rajo la ju bari waaye loolu sant yàlla la day tax boo delloo sa kër xam ne yow kat doomu aadama comme ñeneen ñi waaye li nga gis fii Samba ak Demba ak Modou taxaw nañ ci place kenn fekku leen fa kon Balla ñu ngi gërëm la sant di ñaan sa taxawaay yàgg yow sa sa grand frère Lirou Diane ñi xam ne dafa jàpp ci yow du la bàyyi mukk bu dee jotoon tey gis sa man de bu naa waat lii dina dee. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. salaamaaleykum maa leen nuyu sama nijaay papa ñoo leen nuyu Ira Mbaye ñoo leen nuyu yéen ñëpp di leen jaale li nu bokk ndax yaakaar na ku ne mën na ko jaale sa bopp. ndax Balla soo gisee boobu ba léegi ñëwul añ na lu am na lu ko metti am na tiis am na naqar te nee na moom moo gaañule moo am dëj kenn amul dëj ku am moom loolu moo taxoon booba léegi mu am ci booba léegi gisoo ñaari fan yëpp booba léegi mi ngi waaj pour ñëw ndax boobu mënut a ñëw ndax am na lu ko metti ndax kii dem sunu papa ji jege woon na ko te sori woon na te moom am na fu mu ko tegoon moo papaam bi eh, duuba lees ñoom ñaar la yemale kiif kiif billaahi wallaahi wa taalaahi ñoom ñaar la yemale kiif kiif looloo tax ñaari fan yëpp gisu leen ko mu am lu ko metti am lu ko tiis te tamit tam di ko ñaanal nag booba léegi gisu ko waaye ndax xam ni papaam la jege woon na ko xam na fi mu ko tegoon te moom tamit am na yéene bu mu amat ci su sañoon dina ñëwee neneen nurul nii ñëw di ko jaale si papaam ndax papam la xaritam la woon am na fu mu ko tegoon loolu moo tax mu demee nii waaye mii leen ko jaale yéen ñëpp di ko jaale suñu nijaay Moustapha Gueye ak suñu papa ji ñoo ngi leen koy jaale yéen ñëpp képp ku nekk Gris Fass ak képp ku nekk ko famille famille Gueye ñoo leen ko jaale waaye Gris Fass bàyyiwuñ kenn Balla nag moo am dëj moo am dëj ndax papaam nee na papaam moo dem ku ne mun na ko jaale sa bopp waaye moom de wax dëgg yàlla ci ñi ma ci ma li ma gis ak ma yaakaar dañ ko xaw waroon a jaale waaw ndax am na fi mu tegoon papa Mbaye Gueye am na fu mu ko tegoon waaw ñoo leen koy jaala moom it di ko masaw wax dëgg yàlla ndax ñëw bi booba léegi mi ngi koy wàcc su dee ba yor am lu mu yëg ci yaramam billaahi wallaahi wa taalaahi chaque jour mu woo ma ne ma nan dem su ma ñëwee ma xool ko ma am lu ko metti lool waaye leen koy jaala yéen ñëpp wax dëgg yàlla di ko jaale àdduna bépp ndax Pape Mbaye Gueye Pape Mbaye Gueye ñëpp la woon fu ne teewoon na fa looy defal na ko Sénégal tey jii am na fi ay sunu papa yoo xam sunu nijaay suñu bëggee làmb moom moo tax ndax su nekkan moo njëkk a fayee ko million ci làmb danaan Pape Mbaye Gueye ah fii ñëpp fi war a teew président ak ku mu ku nekkul Sénégal président Sénégal da nga teew war a jaal si ndax moom moo ko liggéey Pape Mbaye Gueye moo ko liggéeyal Sénégal waaw ñoo leen ko jàll ba di ko jàll ñëpp àdduna bépp fu ne mën na ko jàll samorom morom ñoo leen ko baax di leen ko jàll moom mi ñoo ngi koy jàll baax a baax ndax booba léegi am na lu ko metti ndax papaam moo dem ñoo leen koy jaale yéen ñëpp jërëjëf wax ci jaru muy ndax gis nga mbooloo mi ni mel sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla. en 110 ñu fay ko 1 million ñu ne kii c'est un fou. warul ak loolu léegi bu ngeen demee nag yéen ba toll ci warul ak 1 milliard eh ñi dañuy waxtaan ñu amer daal làmb ji mën na génn loolu faaw mën ko génn am na ci ay objectif yu bare bare yi ngeen mën a exploité yéen teen mbën ñi rek yéen nit ñi ko defal encadreur yi dañ leen di jàppale mais yéen seen bopp yéen a mën travailler loolu mais PPV rek mën na indi ay milliards dix mille francs benn un million d'expatriés dix milliards la may loolu war leen ko lekk yéen bu ñu leen fayee cent ngi ngeen defe xaalis la non bu méritez plus que cela li may wax nag mooy jàmbaar ngeen góorgóorlu ngeen parce que mbër teguñu ko fenn góor seen i baay ñoo rayante de seen i baay ñoo rayante ba tax yéen ngeen mën a am lii kon de ngeen di delloo njukkal seen i baay fi nekkoon ñoom parce qu'ils se sont battus metti na parce que ñun xam nañ ci dara ndax fekk nañ ko yéen ngeen ñëw bu êtes assis sur de l'or góorgóorlu leen ngeen ñafe rayante pour yóbbu làmb ji yéen ko mën a yóbbu ñii diriger dootuñu ko yóbbu man dootuma wax sax ci làmb fa di laa ci waxe maa ngi gëj làmb euh, Lac de Guiers 1 Moustapha Gueye seen premier combat laa gëj a dugg ci biir lépp lu may def ci biir laa ko def mais nous travaillons pour vous ñun à Fass amuñu ay esprit d'équipe sportif la ñu xam bu ñu la gisee ngay góorgóorlu dañ lay jàppale bu ñu na mënul jàppale ci ci ci ci zahir jàppale ci baatin parce que vous êtes noo enfants te dañoo seen papa dafa nekk jeune ñu maase màggandoo vivre ndoo lu bëree bëri donc bu ngeen ñëwee di góor ci làmb ñun dañ leen war a jàppale parce que vous êtes nos enfants même bu leen ko xamul. boo gisee sa papa gën ne ko gis naa papa Malick Gueye parce que on très bien on a vécu beaucoup de choses yow nag yaa ngi góorgóorlu ci làmb ji naw nañ la ci bul tegg sa tànk ensuite tu es généreux doomu aadama buy joxe du ñàkk dara bàkk nañu la loolu tu es généreux ku nekk di Mbaye Gueye li nga seq ak moom xam naa ci dara parce que tu savais que c'est ton loolu daal may waxtaan rek mu ngi doon wax ak yéen di nangu seen ñaal di leen ko jaale yéen parce que yéen yéen a moom parce que vous êtes les enfants de Midi sur di Vision